ah bon entendeur salut na ngeen def. <laughs> ñu ngi fi rek waaye kii maa ngi ci jàmm. man de xaw ma lu tax bëggul ñu si tingal ma. <laughs> man de baadu gi mu am suñu moom a jaaxal rek. ah yéene bi moom buñ leen buñ leen woowee. kenn du leen woowee ah kay. Ah, waaye et puis la moo tax ñu war ñoo mais dama xam ne non tant que yéen a ngi wax moom woo leen weesuwul. ah mais léegi lu tax nga wax loolu yow. parce que accident la amit mën na laa dal ñu woo la. mais bu boobaa nga jégalu doon nit ku baax nit day juum. day juum gars yi xanaa wax ah bu boo loolu nag moom Aliou yëfu tàppet la nag. non non non ku juum moom yëfu tàppet la moom. moom boo fi non boo fi toogee nii wax moom ba ba ba déraper moom. bul te assume tes responsabilités rek quoi bul fi nekk. di ah, jégalu ah Birame Souleye defu ko fi. def lan bi mu jégaloo luñ ko def. booboo gën a garaaw. waaw lu ñu ko def bi mu boobu dafa garaaw. Ah. waa mais jégalu na. mais jégalu na après ñu def ko lan. mais euh, yoon. ñu jégal ma jégal la yoon jégal la c'est différent. waaw non attends dafa jégalu kenn jégalu ko non non ku la wax kenn jégalu ko. Ah, ki mu waxal jégalu ko. jégal ko ki mu doon waxal jégal mën na ko jégal waaye kooku bokkul dara ak yoon du koo koy décider. ah ah waaw kon léegi ma rey ku ma neex après ñu ma jégalu ma jégalu waa këram ñu bàyyi ma ci biti. Ah. d'accord nga. déedéet d'accord ah kon jeex na benn la rek amul différence. ah kon ki mu waxal jégal na ko. mais mais yoon na ko gëm naa ni jégal na ko. yoon moo ko jégalul. mais yoon moo ko jégalul c'est différent. Hmm. waaw léegi kon yow boo jégaloo boobaa ñu jégal la te yoon. man non man moom nit kii laay jégalu man bu ma toonee justice nag justice na def liggéeyam. Hmm. ayca mi ngi ne wala boog parce que sinon rek day doy waar parce que justice bu deful liggéeyam. Hmm. Seydina bu ko dalee moom tamit kenn waru kenn waru ko kenn kenn waru koo kii dañ ko war a épargner moom tamit parce que il faut nga may yemale man sama diggante ak Seydina. bu dee dama def sàngam Seydina def sàngam. dëgg la man munoo ma def munoo munoo munoo ma kii munoo ma bañ a boo ma hmm. jéggalee. Hmm. jéggalal Seydina mais traitement de faveur am na de. traitement de faveur moo warul am nag. bari na de bari na trop sax. waaw loolu dañ fa war a jeex. ci réew mi waaw ah, ah, bari na de. dafa dafa war a jeex. loolu hmm. loolu il faut mu jeex fii loolu loolu loolu bu amul cim réew rek réew mi toujours day poser un problème. diw bu defee bu ñu ko téye euh, résident euh, loolu euh, bàyyee parce que dafa am kiiw médical lu ñu koy waxatee. dossier médical waaw dossier médical feebar ñu war ko génne pour des raisons humanitaires. Hmm. bu bu dalee keneen dañ ko war a génne ni ñu génnee Bougazelli yaa ngi may yóbbu de. Hmm. noonu la ñu war a mën a génnee Cheikh Bara. comme da doon te dafa feebar. te Bougazelli li mu defoon moo gën a garaaw fuuf. Ousmane Sonko.

Euh, Cheikh Bara. Ousmane ah. aussi dafa am asthme. et asthmatique Ousmane mais asthme wul moom. Cheikh Kaw am na aussi début insuffisance rénale. waaw mais Aliou yow li koy waral xam mais mooy moteur mooy moteur bu amul moteur bu amul huile. mooy Aliou Aliou sax wax ji rafet rafetul dara. mais nit kenn du ko xeebal jàng. rafetul yow yaay wax wax bu rafetul non non dafa rafetul li dara. <laughs> lan moo lay ngi la wax non non nga wax naa suul commencé nañ c'est-à-dire que yow xam xam lan lu Ousmane Sonko def quoi yow yàbbil booy bi quand même dama ne ah, Cheikh Bara la non non yàlla nga quand man man man feebaru Cheikh Bara Cheikh ah, ma rek Cheikh ah. Bara mais asmam asmam xam fan la toll asmam war nga nangul noonu Ousmane Sonko asmam waaw parce que gendarme nga nangul ko ko xiifalam nga nangul ko ko non déet kon naka nga mën a nanga d'accord kii am na dossier médical war nañ ko may liberté provisoire nga bëgg ko xañal ka ca des non déet non dama ko xañ waa léegi man sama wax bu yeggul kay li nga may def ah non non du question parce que li nga bëgg a wax nii moo tegul ci yoon waa léegi lan laa bëgg a wax c'est que nit non li ma bëgg a wax amul solo li may wax li ma nar a wax moo am solo julit nga quand même non li ma bëgg a wax amul solo li ma bëgg a wax non li ma bëgg a wax amul solo li ma war a wax moo am solo te li ma war a wax boo ma bàyyee ma wax ko mu yegg doo ma coupé ni lan nga wax yow non dama ne Cheikh Bara man xam naa ne dafa am asthme parce que dama ko xam. Cheikh Bara day utiliser. Euh, loolu ñuy def euh, ci bi quoi pompe bi ci boppam foofu la ci toll. ok d'accord yaa ngi dégg mun nga am hmm. asthme technique man sama hmm. doom am na asthme du ko def. am na yoo xam ne début d'asthme la yooyu noonu. mais dafa am asthme dafa am niveau. Hmm. Cheikh Bara niveau asthme dafa garaaw parce que pompe bi da koy utiliser. jour bi ñu ko téyee sax dafa amoon problème loolu. surtout sûr jour bi ñu ko wooyee dafa soxla da doon laajte pour ñu dem jëleli ko euh, pompam bi. Hmm. ak mantelaatoom bi muy def ci bakken yi. d'accord Ablaye est-ce que dé non déglu ma rek non. wax bu ma li ma bëgg wax mu am solo. mën nga ah, bëgg a wax amul solo de. li may wax mu am solo. c'est tout dama bëgg wax Ablaye ne ko jarul sax di di titre émission bi commencé na. non non wax rek. parce que kat moo provoqué bëgg a jaxase mhm. nii ñun ñii am problème bu d'insuffisance rénale. xam nga tax. Mhm. moom laa doon jéem a nga coupé ma Euh, non c'est que parce mu nga ko bàyyi mu jàll mais nga bëgg ko xeebal ko bàyyi mu jàll dama bu fekkente mu wax lu am solo garaaw mun naa ko bàyyi mu jàll mais bu fekkente dafay bëgg boole ay mu jàll ñu leneen lu ci bokk différence. lan lan laa def mais dañ koy delloo soit quand même cest à a war a mën a firi. il faut ñu xaw man il faut ñu wax ñu woon. ok mais mais mais comme que junju nañ ko sànq te ñu ngi ci diggante Cheikh Bara euh, Ndiaye ak euh, Ousmane Sonko xiifalu ñaxtu daal di ci tab bi euh, kii di xalif général des Mourides Euh, sëñ Mountakha Bassirou Mbacké ci mm. délégation waa Yewwi Askan Wi jot na leen a dalal euh, jox leen sari ca tàndarma goo xamante ne euh, ñu ngi koy yóbbante Ousmane Sonko ngir mu mun koo jëfandikoo dakkal xiifalu ñaxtoom doon na càkkuteefu xalif général des Mourides mm-hmm. noo gisee càkkuteefu xalif bi ndax yaakaar nga ne Sonko xëy na dina ko déggal ci càkkuteefam ba dakkal xiifalu ñaxtoom. ni ni ma ko gisee. Mm. mais dafa lu ma njëkk gis mooy mooy Euh, Fall Ndiaga Yaram borom 33 Mamour Damel. moom ak xaritam. xam nga yow li moo tax Seydina di la wax li mu lay wax tamit waaw ndax ñëw naa ma taluma sama. ah non non mhm. euh, euh, sama sama sama faaleen bi. moom mi baax moom mi technicien international universel mondial. jàpp ay machine am rek xaw ma lan lay appuyer yan lay kii. waaye xam-xam moom. Mhm. looy def na mët. waaye moom day faal mëtle na ci li muy def ak xaritam bii toog ci wetam di di Fatou Bintou di wut xam-xam moom it dal leen yàlla sàmm kontaan naa dama bëgg kii nii mu may ma jàmm xam ni man damay góorlu kese te mën naa juum. waaw mais léeg-léeg nan nga def kii mu teg mu taakale la nekk séeréer. léeg-léeg mu taakale la teel a disjoncté nag. daf maa teel a disjoncté. <laughs> waaw ah koo def waaye mbir mi nga wax ni. <laughs> am na solo trop. ci euh, ci ci xiifal gi. Mm-hmm. parce que finalement dafa am euh, un groupe boo xam ne ci opposition bi lañu nekk bu lañ bokk tudd yeewi askan wi. Mm-hmm. li ñu def mooy dem. Euh, euh, ci seen i ay moyens fexe pour am rendez-vous ak xalif général des Mourides. parce que dañ ko soxla woon. Mhm. njëkk nañ def benn tentative. sana mhm. euh, n'a pas marché waaye beneen tentative bi mu dox ba ñu joxal jox leen bis xalif bi recevoir leen comme ni mu koy defee. Mhm. léegi xalif bi mu leen recevoir ñoom nag wax nañ seen mbébét bi ñu ñëwee dafa am lu leen indi. te leen indi lu dara lu dul ñu jàmbat. Euh, euh, euh, grève de la faim bi xiifal bi nga xam ne moom la Ousmane Sonko di def parce que tout simplement ñoom mënaluñ ko dara ñu bëggoon sëriñ bi intervenir ci pour Ousmane Sonko arrêter grève de la fin bi nga xam ne moom lay moom lay moom lay def te nit ñi di ko wax officiellement. léegi nag bi ñu demee nag di jàmbat loolu ci sëriñ bi parce que loolu moo leen fa indi woon. ak yeneen ba pare ñu bàyyi leen bàyyi détenu politique yi tur ñu fa tur. Hmm. waaye bi ñu defee loolu ba pare sëriñ bi moom na. wax na li tax moo xam ne yàgg na ko wax mooy xiifal ku xiifal. àndu ci moom àndu ci parce que ku xiifal boo ci deewee da nga xaru loolu la yoon wax te ki nga xam ne sax mooy ndey mille ji doon principal intéressé bi. muy Ousmane Sonko moom ci boppam loolu la daan wax. Hmm. daan ne xiifal baaxul parce que daana sax yedd faamu faamu. faamu Casamance yi bois sacré yi daan na leen yéen li ngeen di def baaxul d' abord leen di wàññi ci seen yaram mooy indi sax début d' insuffisance rénale bi ñu wax. Hmm. noonu parce que machine machine buy kii machine buy euh, euh, euh, kii. dox bu waaw buy buy tourner. Hmm. comme comme comme moteur rek moteur buy tourner bu amul huile day dem ba gis nga après oto bi day couler. donc day ngay couler parce que sa sa sa organe bi dafay yëngatu. sare yi day yëngatu mais du gis dara lu koy lu koy yëngal donc day xoosu di xoosu début boobu nag xiifal bi moo koy indi ci yooyu la bokk loolu laa doon jëm a te ba bu weesoo physiquement li mu lay wàññi ci sa yaram ak insuffisance début d'insuffisance rénale yooyu dina la wàññi aussi psychologiquement parce que boo xiifee sa xel dootul demati te li nga bëgg a xeex sax doo ko xeex loolu ci wàllum zahir la mais ci wàllum baatin bi dafa am loo xam ne dafa am solo loo xam ne l'islam daf ko wax ci waan anamu xiifal te Ousmane Sonko d'accord na ci daan sax yedd nit naan bu leen mës a def li parce que lii lu baax du lu baax expliqué na ko physiquement mais expliqué na ko aussi spirituellement en disant en essayant de de de faire comprendre aux luy dëgg la ma d'accordoon ci trop ak moom muy wax ne man Ousmane ko digaluma leen lii parce que lii baaxul surtout que sax ay jullit ngeen te jullit warul def grève de la faim ñeneen ñi mu ñu ko def ci bitim réew parce que gëmuñu yàlla parce que ñi koy def en général gëmuñu yàlla ndax grève de la faim jógewul fii ci yenn dëkk yi la jóge dëkk tubaab yi te ñoom en gëmuñu yàlla ñi koy def léegi nag comme yooyu yàlla daf ko euh, def ko tere l'islam da ko tere même même chrétien yi dañ ko dañ ko fa tere parce que loolu c'est considéré comme un comme xaru Ousmane Sonko d'accord ci woon léegi nag moom dafa nekk ci ay situation mu metti xëñ na torop bon peut-être mun na nekk ci ay moment de faiblesse mu ne lii mooy stratégie bi pour génn ci waaye donte def na ko te daan na ko defendre mais ba tey sax changé wul ni mbirum yàlla dañ koy tere xiifal boo ci deewee xaru da xaru te ku xaru da dem safara léegi nag non déet pour mu leer. Hmm. ki kay def jullit la te d'accord ci woon léegi il faut ñu yedd ko ci xelam pour mu bañ koo def xëy na nag yedd bi ñëpp wax nañu comme waa Yewwi Askan Wi mënuñu si dara ci la ñu jóg jël seen dàll jël rendez-vous wax xalif bi xalif bi nag li mu ci wax amul solo guddul sax hmm. daanaka hmm. ndax ñun dañu am ay information li am solo xam nga mooy daal li xalif bi def ma yeggal rek 30 secondes li xalif pour li xalif bi dafa jël Euh, xam nga. mala bëggoon a cuqaat rek mu gën a gën a dem quoi. mais bàyyi ko mu ñëw ci li xalif bi wax. Hmm? non xalif li mu wax dafa simple parce que dafa wax li wax xalif bi wax ba amu ci ah, solo. non ko a bëgg nañu xam lan la ci xalif bi wax. mu gën a continuer parce que xam nga problème mooy que fu mu toll nii ba muy génnee xalif bi jox na joxe mm. délégation bi ñoom Habib Sy ñoom Habib Sy aussi sàkku ci xalif bi mu yombalal leen ko ba su ko defee ñoom ñu mën a gis Ousmane euh, wax si Euh, léegi euh, Ousmane Sonko. bon boo li mu woon ba tey ah, léegi ñu ngi dugg si leneen mais c'est pas grave. Hmm? pourtant ci lancé boobu nga nekk. Ah, da ko bëggoon sànni rek. Ah. Ah. non non c'est bon c'est bon dañoo déggoo dama xuloo yow non non li mais yow. mais yow ñun suñu xuloo du jeex. mais mais Alioune Alioune. fii mën naa la si bàyyi continuer quand même. waaw c'est ça c'est-à-dire bu ma li muy wax dafa am solo c'est-à-dire nit ñaa ngi déglu te ñu bari xamuñu lan la xalif bi wax. ñu xalif bi xam lan la wax. waaw mooy li mu jëf. xalif bi waxul leneen Mm. lu dul li mu jëf. lu mu jëf rek tàndarma gi. li mu jëf mooy jël na mbir mi. waaw am na yu mu ci def. moom ki représente Serigne Touba fii sur terre. Mm-hmm. dëgg la am yum ci def jébbal leen ko nee leen ko joxal ma leen ko ñoom nag ñaan nañu pour ñu yombal leen mbir bi waaye xam ngeen ni xalif bi ku mu yónni. Mm. ci Ousmane Sonko nee leen joxal ma leen ko lii état bi amul xalaat sax naan de leen di empêcher pour ñu yóbbul ko ko. loolu moom jaru sax xalaat donc ñaan boobu sax ñoom ñoom waa Yewwi Askan Wi pour ñu yombalal ko jaru ko woon parce que xalifa général des mourides moo yóbbante moo jox yóbbal ci Ousmane Sonko te wax boobu dafa am lu muy tekki rek mhm. mooy li ngay def baaxul santu yàlla baaxul ci sa yaram mooy li ma doon wax rek mhm. te te te te l'islam bi ñu gëm daf koy tere yàlla subhaanahu wa taala da koy tere hmm. donc arrêté li ngay def Ousmane mais est-ce que yaakaar nga ne tey jii même bu fekkente ne xalifa bi jox na gars yi ne koy euh, dañ leen ko yombalal daal ñoom non da nga xam daal bu ñëwee daal dañ leen ubbil kaso euh, kaso yi par force par dégg loolu wax man wax boobu mu yónnee laa wax hmm. day yegg ci Ousmane Sonko par force

xam nga lan la leen leen kese la mooy ay tàndarma la bu ñu ko yóbboo day toog mu toog garde présidence ñu ubbi affaire bi garde présidence pénitentiaire bi surveiller ko xool ndax tàndarma la dëgg-dëgg du du du chocolat te du te du te du te du te du poson parce que ñoom tamit dañu am droit sauver continuer di sauvegarder la santé de Ousmane Sonko parce que ci seen responsabilité la nekk donc il faut ñuy vérifier mbir mi lan la boo indee añ dañ koy xool lépp loo fa indi donc tànnama bi dañu xool ndax dëgg-dëgg euh, du du tàngal meew yu ñuy def ay bagages aussi dafa am aussi leneen loo xam moo gën a motiver aussi seen déplacement ñoom moo mhm. doon fexe xalifa bi wax pour que président Macky Sall bàyyi Ousmane Sonko. loolu amu fa waxtaan boobu amu fa parce que xalif bi du def loolu xalif bi du moom mooy wax ni président bi na ko bàyyi bu ko doon wax sax du ko wax officiellement du ko wax sax muy coow te lii c'était pas une séance c'était pas une rencontre privée c'était une rencontre publique ñëpp a ngi toog kon c'est-à-dire que li Habib Sy wax doon ko bëgg a weddi waxul loolu lu mu wax moom Habib Sy waxul ni euh, dañu ñaan xalif euh, bi dafa ne pour Macky Sall dafa ne woon maa ngi ci non non non waxul loolu de non xoolal rek lii la ñuy def. ah loolu. Euh, euh, non c'est pas vrai contrainte boobu la presse. bi muy bi muy wax moom. def revue de presse. non waaw mais Habib bi muy liggéey loolu ma rek Habib Sy la bi muy wax yow presse bi. non que dafa def déclaration euh, ko def ko ah, dégg mu la wax def ko. bi li ñuy li ñuy relaté wuñu ko te xamal lañu ne te ñun lu presse bi relaté xalif baa ngi def jéego hmm. parce que nee na ab bi dafa ne ñoom a leen xaw hmm. fekk jéego xalifa bi nekkoon ci ay jéego pour gisee ak président Macky Sall président Macky Sall jéem a jéem a bàyyi Karim Meïssa Wade bàyyi kii. Euh, euh, Ousmane Sonko d'accord xale mmh. bi bu ko doon def bu ko doon def laa wax kenn du ko bu ko doon def. Mmh. kim ko séqal la moo koy yëg. du ko wax en public. ce n'est pas vrai loolu amu fa tudd ñu fa sax turu Macky Sall bu fekkee ne tudd nañ fa turu Macky Sall je suis pas la rajo la maa ngi rajo nii. Mmh. wax leen man tudd nañ ko benn moo laa wax ñu tudd rek M Sall rek ci biir waxtaan boobu amoon foofu noonu. te bu doon waxtaanu public. bu hmm. fekkee ne am na ku ko fekkee te man lii ma wax ni du dëgg na ma woo fii léegi mu wax ko en direct man du ma waxantu du mu wax nag lépp man du moo wax lépp de waaye bu ma waxee xam naa li tax ma wax te bu ma ci insister c'est parce que loolu moo am nañ ma ne ndax tudd nañ fa benn yoon laa xam nga booy wax loolu di nga sax tudd turu Macky Sall nañ ma wax ndax mais loolu ñi fa nekkoon ñooñu ko mën a leeral non non man maa ah. jot nañ ko fa waxuñu sax ci waxu jafe-jafe askan wi waaw euh, jëm euh, ñu fitnaal ak fa ay affaire bàyyi diw loolu waxuñu ko fa c'est possible loolu xalif bi bu ko doon lijjanti xalif hmm. yàgg na ko lijjanti yeggu leen fi benn yéen benn subatee benn gungoon si rek Macky Sall bàyyi réunion am daw fekk xalifa xalif bi euh, euh, Touba à 22h hmm, hmm. ñëw ñibbi si waat 23h30 def fa une heure temps même pas une heure temps non li mu ko bëgg a wax dina ko wax bu ko soxlee dina ko wax bu doon wax moom téléphone kenn du ko yëg même ñii di écouter sax duñ ko duñ ko xam donc ci loolu

ñi nekkoon foofu ci délégation bi dem gisante xalifa bi. ñu wax ko yaxuñu ko. mais seen xol moom moo nekkoon xalifa bi def déclaré euh, euh, dugal loxoom. pour que vraiment ñu bàyyi Ousmane Sonko mu ñibbi. quand même xam nga boo waxee réew mi am jàmm. boo waxee machin waaye génneel diw ci kaso bi. waxal kii mu génne diw ci kaso bi wax boobu ñoom duñ ko wax xalif bi ñoom ñi ñi def ñi fa demoon sax duñ ko wax xalif non non pourquoi pas non déet maa la wax loolu pourquoi pas déet ah waaw du nekk parce que xam nga lu tax parce que ñooñu ah ay homme politique lañu expérimenté xam nañu li ñu war a wax en public ak li ñu warul wax en public duñu taxaw mukk ne waxal yow xalif général des mourides vénéré guide dañu bëgg nga wax Macky Sall mu bàyyi Ousmane Sonko mu génn ci kaso bi loolu duñ ko ko wax maa la wax loolu mais est-ce que génne woon duñ ko ko wax de Cheikh Diagne euh, euh, te xam naa bu baax li may wax euh, kii Sow est-ce que coow li am ak yeneen ak yeneen génne woon Sonko ko ci kaso bi génn génnutoon. xam nga man. Hmm. xam nga euh, man dans une république. Hmm. Euh, euh, dafa am ci war a génnee Sonko ci kaso. ñaari nit ñu war a génne Sonko ci kaso. selon état bu bi. Hmm. ñi war a njëkk génne ci ka Sonko ci kaso bi. mooy ñi ko téye. muy yoon. muy yoon. waruñu sax tàmm di wax ni diw génne ci xam la ñu war a wax nañu am transparence ci. yoon ni muy doxee ci réew mi ci yooyu la ñu war a waxtaan waruñu sax toog dans un régime de séparation des pouvoirs ñu ne diw président de la république dafa war a génne diw président de la gracier la mën a def wala mu amnistier mu créé loi au travers de l'assemblée nationale loolu kese la mën a def mais mënul def leneen c'est impossible mënu ko donc di wax sax président génneel diw loolu wóorul parce que beneen président dina fi ñëwaat ñu waxaat ko génneel diw te loolu moo fa war parce que président warul mën a génnee nit ci kaso alors que bi mi ngi suivre son cours loolu waruñu ko wax erreur la ci ay communication bi ñu ah, def ah parce que dañuy gis dañuy gis euh, benn erreur man laa mës a gis fii ci régime Macky Sall ñu def ko ma jooy ko yuuxu ko dénonce ko avec la plus grande rigueur mooy bi ñuy euh, euh, affaire problème mu Touba Belel bi avec les faux médicaments ñu jël médicaments yi waaye koo xam ne appel la nekk mhm. dañ ko tëj mu def appel Diallo la way Mouhamadou Wuri Diallo Wuri Diallo way parce que ci affaire pratiquement presque deux milliards maître baabu moo doon moo doon moo doon euh, ex jëkkëru. Euh, euh, kii Degen Chimère. Degen Chimère ak mm, ak ak kii Touré nday fàttu Touré. Mm. maître mu ne ñu ñu dem waa ji ñu dóor ko en première instance mu def appel. ñu fexe ba lijjanti xaw ma nuñ ko defee loolu parce que yoon bi gars yi itinéraire bi gars yi jaar ba lijjanti loolu loolu laa mënul comprendre parce que administration pénitentiaire ci boppam waru woon xalaata nangu naan day poser une demande de grâce parce que mënuñu la demander grâce alors que yow sa euh, les recours ne sont pas épuisés. surtout que Mamadou Wuri jàll ak ay avocats am dañu defoon appel. ñu fexe ba lijjanti loolu ba jël kayit bi ba yóbbu ko ci service juridique bi nekk pale parce que Macky Sall du nekk di signer président de la république du nekk di xool lan kan ak kan moo woote. moo moo moo nekk ci grâce yi dafa am service boo xam ne ci biir pale bi service yi ñoom ñooy liggéey ci loolu xool ñëpp ku si nekk sa tur ndax yow yelloo nga am affaire bi bu ñu euh, scruter affaire yi ba lépp normal ñu ñëw jox président la république mu signé hmm. donc ñoom dañ si dugal turu Mamadou Ouri Diallo kon gars dil dil wa dil yooyu nag laa lay wax ni <laughs> yooyu la war parce que ils n'ont pas le droit loolu loolu raccourci bango man je pense que le président bi daf ci nelaw rek mais mënu ko woon gis parce que loolu du nangu ridicule à ce point là hmm. du ko nangu moom du ko nangu parce que c'est trop grillé li ñuy wax ñi ko si dugal ba affaire bi rëcc ba waa am temps daw dem Guinée mu trop tard alors que mi ngi woon appel ñu tëjoon ko kaso loolu laa mënul jaaxal parce que il faut que les recours mu épuisé wu ah, définitivement pour que président mën a gracier wala ñu mën a wax euh, une loi d'amnistie c'est que li ma si jaaxal mooy dafa mel ni que xanaa Mamadou Wuri Diallo amul ay nijaay ci dëkk bi wala amul tante mais Mamadou Wuri moomu kay du sénégalais sax nag Aliou Sow li mu si extraordinaire mais sénégalais gi fi gis ay nit ñoo xam trafic faux billets ay milliards. bari na fi ñu filmer la nga koy avoué yow ne damaa juum. d'accord ñu xëy daal la bàyyi yow yow choisir daal mooy Mamadou Wuuri Diallo parce que Mamadou Wuuri Diallo amul nijaay si dëkk bi. parce que dama doon expliquer non déedéet. boobu ah, bokkul ah non non bul am na aussi mi dafa nekkoon en mandat de dépôt kii dañ ko jugé en première instance ba tëj ko ci kaso bi pour pour grâce mën a am pour grâce maanaam il faut que recours yi mu épuisé wu qu'il y ce qu'on appelle une autorité de choses jugées kenn mëntu si dara léegi président moom mooy xool après lu ko neex parce que yoon moo ko yelloo loolu mu xool ndax mën na ko boole ci mën na ko gracier wala mënu ko gracier non non pour nga comprendre ne bokkul yoon mu ngi dox kon loolu dañ foo dafa dafa dafa dafa nécessité woon beneen enquête waaw d'accord na yuuxu naa ko fi wax naa ay ay nan la deal bi amee. nan la deal bi amee ba ba waajooju nga xam ne parce que waaj aussi nekkul ku taw ndaw aussi. non waaw mais xaalis la. waaw mais forcément. ñu ñi nga xam ne dañ leen waroon sanctionné ci mbir mi ñu mais déjà rek xam nga euh, ñi ñu war a gracier ñooñu ñooñu mais ñooñu ku si nekk sa tour la sa sant la sa photo la sa date de naissance la sa li nga def la sa dossier la. Mhm. mais balaa ñu laa jël di la yóbbu xam nañu yow pare ko amuñu woon droit bàyyi ko Wuri Diallo boobu. amuñu woon droit def ko ci biir dossier de grâce. mais est-ce que amul lobby. non ah mais ah, bien sûr am na lobby ci biir euh, Ablaye géej gi naan na géej gi am na ndox. non c'est sûr. léegi nag li seeni naa wax nii te ma waxoon ko sa njëlbeen. Mm, waaw mooy xool fan la niveau de responsabilité yi nekk. ana lu tax ñu dugal ko ci dossier de grâce. parce que kooku waru ci woon bokk. léegi ñu wëy ah, parce que xam nga actuellement nii ñu ngi jëm ci. élection mais bokkul dara ak.